Assane Samb ñu ngi lay nuyu. maa di fàttali ni yow taskatu xabaar nga itam di xeltu ci wàllum politique. alors li jëm ci actualité bi nga xam ni itam moom la ñu tàmbalee sunu waxtaan bi bokk na ci ci euh, di xaar euh, tribunal grande instance bu dakaar ci li jëm ci renvoi dossier Ousmane Sonko ak état wu Sénégal euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di avocat maire bu Ziguinchor déposé nañ ca fële nga xam ni moo di euh, ca Cour suprême ab rabat d'arrêt euh, li ni mel nag dañu jàpp ni décision. fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi nga xam ni itam jëloon nañ ko dafa am ay lënc lënc yi ñu jàpp ni ñoom avocat yi loolu daf ci am ndax ki nga xam ni moom moo di signature magistrat bii di ay Aïssatou Diallo Ba nekku ca waaw loolu de rabat d'arrêt moom wax dëgg yàlla yoon moo ko maye euh, cour suprême nag bu décidé ñaare dañuy wax loolu dañuy wax cour suprême maanaam tambaxtal la ci nit da nga xam ni amatul beneen recours ñu indi nag rabat d'arrêt pour ubbi benn genre fenêtre parce que juge yi comme ay nit lañ mën nañ juum ñoom gis ne bu amee erreur li ñuy wax erreur substantielle c'est-à-dire dafa porter ci loo xam ni dafa am solo erreur boobu ñu ni juge bi yéen kat yéen a àtte woon yéen waa cour suprême mais may leen ngeen xoolaat àtte ba ndax jàpp nañ ne am na erreur yu ci am ndax li yëfi nit la moo tax ñu ubbi fenêtre rabat à l'arrêt rabat d'arrêt bu ñu ubbee fenêtre bi effectivement avocat war nañ joxe argument yi nga xam ne moo tax ñuy wax loolu par exemple buñ ne comme liñ ko waxee magistrat bi si ñëwul waaw monsieur Tall lu tax si ndax dañ ko teree mu signé moom moo bëggul signé parce que nit ma na bañ a signé. ñëpp mhm. pas parce que donc yooyu yëpp ay question yoo xam ñoo ko si doon dina ko xoolaat ak ak ñooñu man mënuma ci tranché mais li moo daal mooy rabat rabat d'arrêt moom yoon dakam ne avocat yi mun nañ ko def mais nag rabat d'arrêt c'est pas suspensif d'après jurisprudence juge yi la ñu wax depuis fa Sall et tout. mooy que du traité procédure du continuer moo c'est pas parce que dafa am rabat dara dañ naan bon nañuy suspendre yëpp xaar euh, ba rabat bi jàll et cetera non c'est pas suspensif le tribunal d'instance bi nga xam ne saisoni mën a def liggéeyam loolu la jurisprudence bi wax donc effectivement rabat d'arrêt mais rabat d'arrêt boobu lu traité procédure suivre son cours parce que yoon moo may donte nag ñu bari dañuy wax ni rabat d'arrêt souvent day tax avocat yi dañuy tardeel procédure bi rek di koy yeexal te man gisuma fii lu ko di gagné ci parce que wax dëgg yàlla bu ñu demee gaaw tribunal d'instance bi gaaw décidé ñu buñ dee dellu ko suprême ñu dellu ñu euh, procédure bi gaaw jeex xatamaa na moo ko gën a arrangé mu xam fu mu féete loolu yëpp ay ay circonstances yoo xamante ni man jàpp naa mais avocat yoo xam ne ñu li ñuy liggéey ñoom seen liggéey waaw donc loolu ñuy def noonu seen rôle fanfaar bi seen rôle la dans tous les cas dañuy rafetlu li nga xam ni euh, Sonko Pastef yi ñu ngi koy def nii ak patriote yi muy ancien Pastef yi c'est c'est parce que c'est pas parce dañ leen dañ leen ragal ñu ragal ñu kenn mais euh, dañ leen ba Moussa wax ni bataille judiciaire bu jotee dañ leen di xeex ci wàllu yoon moom la ñuy def nii lépp la yoon may rek jëlal après boo demee ba si biir boo xamante ne amul dëgg nga xam ne yow amoo dëgg nga namm ni yow amoo nga ko léegi euh, coowal xalifa sàll ku ne dégg na ko fi li jëm ci rabat mu mel ni bi yoon itam dafa ñëwaat Karim Wade itam fàttewuñu ko Assane Samb. waaw effectivement cas yooyu amoon na fi ci lañ def sax jurisprudence boobu ñu ne c'est pas surtout cas Khalifa Sall rabat yi day mos a am mooy procédure Cour suprême yi dañuy jàpp ni peut-être arrangé leen. li ci ëpp nag dañuy def pour tardal procédure yi xam nga yoon moom bu la mayee la ngay jël parfois nag li ngay jël day bloquer sa adversaire day tax affaire yi du gën a leer day tax affaire yi yeex waaw yooyu aussi ci xeexu yoon la bokk loolu la tubaab di wax dilatoire loolu ci yoon la bokk yoon borom aussi day day jël li mu moom yépp ah, ah, donte mën na jàpp ni day yeexal bu yeexalee procédure bi moo ko gënal moom donc mais euh, avocat yi bon ñu ngi ci seen liggéey li sonn nañ ko ci maanaam ñu ngi ci ñoom ñu ngi seen yoon daal ñu ngi seen yoon ñu ngi def li ñuy def ñu ko war a def lu ñu war a def la Cour suprême aussi dina décider euh, par rapport ak rabat boobu euh, pour tribunal d'instance dina décider par rapport ak recours bi bi nga xamante ni Cour suprême yónnee na ko ko pour que mu jugé waat jugement bi amoon loolu moom mooy les procédures loolu moom mooy les procédures Mm-hmm. alors Assane Samba est-ce que mënuñu wax nii kon candidature maire bu Ziguinchor bii di Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi ni mel euh, mbir mi mu ngi koy gën a sori. waaw bon sori ba bi nga xamante ni ñàkk la Cour suprême ñàkk devant la mooy le 17 sori maanaam Cour suprême dafa. fexe maanaam dindi acte ba ci Ziguinchor defoon Ziguinchor bu la ñu yëpp victoire Sonko la woon xamoon nañu mu kase ko li juge bi acte wul yoon li beneen juge na ko acte ñu dem CEDEAO le même jour CEDEAO ni ci état Sénégal euh, solfaani wul benn yoon droit yi Ousmane Sonko waxul droit yi Pastef de droit yi Ousmane Sonko mhm. donc non seulement Pastef moom lañu dissoudre le parti opinion mais jàpp waxuñu ko mais dañuy sous-entendre dafa mel ni dañoo lépp ni même radiation bi yoon la parce que bu fekkee salfaan yi benn droit am ko d'accord na ci radiation bi dañ kaa waxul rek du dëgg mhm. kon d'accord euh, yooyu bataille yooyu mu perte moo tax suñ ko jàpp ni moom affaire bi mu ngi koy sori donc nag jeexagul xeex bi jeexagul mais affaire yaa ngi koy sori mu jël plan B jamaay teg loolu tax mu ne ah, ñu ñu mu ñëw après dégg nañ itam ki nga xam ni moom moo di Cheikh Tidiane Dièye ne itam mbër la ci élection présidentielle atum 2024 yi ba mu lancé li nga xam ne moo jëm ci parrainage yi itam yàggul euh, contexte ba mu ko defee ginnaaw ba mu seetiwee ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ca prison bu Cap Manuel lancé li nga xam ne moo jëm ci parrainage am te ñu xamee ko itam ku jege lool ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko. waaw parce que plan B bi bi ñu ko waxee man jàpp naa ne plan B bi wóorul parce que Diomaye muy ci kaso bi yóbbu fa boppam gaar condamné wuñ ko ci dara donc am na li tubaab bi tax d'ailleurs pare na mais euh, charge yi pesé ci Diomaye la décharge yu diis parce que bu ñu la waxee ay atteinte à la sécurité wax ay complot ay affaire terroriste yooyu mais acte yooyu grave na grave boo xam ni waxuma ne yaa def wala defoo xaw ma instruction dina am mais accusation yooyu grave na grave boo xam ni est-ce que conséquence yooyu dina jël candidat boobu di ko jox muy nekk candidat à la présidentielle alors que l'article 127 dani valider candidature candidat conseil constitutionnel am na tout par tous les moyens moyens yu mën di doon pour xool ko saytu ko voilà nga wax bi mhm. boobaa ñu ragal ni euh, conseil constitutionnel mën naa bloqué candidature conseil constitutionnel moom mooy décidé mais dañuy si suñu analyse bi ñu njort ni candidature Diomaye boobu bu wóorul ma xalaat ne ci biir Pastef aussi réflexion boobu ñàkkul def nañ ko fa ñoom patriotes yi. Mhm. bëggatu ko xëy na ñàkkul am nañ plan C mais plan C duñ ba plan B bi jàll wala ñàkk jàll ñuy door a wax seen maanaam pexe la loolu mooy jàll dara. bi mën na nekk Cheikh Tidiane Dièye mën na nekk ji mën na nekk keneen mën na nekk mën na nekk sax kenn opposant boo xam ne bokkul ci Pastef mais loolu ñoom mënaguñ cee wax tant que réglé wuñu cas Diomaye ba pare. noonu la. d'accord donc ñu ci seen bataille politique également. après bi ñu nekkee si bataille judiciaire aussi ñu ngi ci ak calcul politique. d'accord pour que ñoom l'essentiel pour ñoom nañu bokk ci élection yi. bu ñu amul directement candidat am koo xam ni ñoom di leen mën di leen ko mën a wéeru mu jooyal leen ko ëllëg te lépp luy bëgg mu mën ko defal loolu aussi ñoom calcul yooyu ci lañ nekk calcul yooyu moo normal. loolu mooy xeex normal li bon mooy ngay saaga parce que loolu saaga ak lu ñàkk fayda parce que ngay saaga boo jàkkaloo moom loolu beneen bi mooy moom teg ci di xeex yàq li ngay xeex li ngay yàq yëpp sa papa say liggéey ak say dëkk loolu ñoo ko moom loolu aussi affaire ñàkk fayda la. li ñuy def lii moom mooy fulla ak fayda loolu duñu sori ci politique bi dañ ciy des ba tey euh, léegi gis nañ ko ay euh, livre programme la ay candidat à l' élection présidentielle atum 2024 moom daanaka léegi modd la daanaka moom la ñuy génne di ko jaay ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal ci seen programme ngir ñu mën leen fal alors bu ci mujj bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Mame Boye Diao bi nga xam ni euh, fësal na livre bi nga xam ne bind na ko alors li ni mel est-ce que dafay garanti que nii euh, di nga nekk président bu baax wala danga jàpp ni am na lees waxul ci li ñuy bind. non non bind moom am na solo. dëgg yàlla boo bëggee jiite am réew. il faut nga nekk intellectuel buy xalaat. waaw di xalaat waxuñu bu am xel. waxu waaw mais buy xalaat. koo xam ni. ci lépp lu xew ci réew mi mu ngi ci joxe xalaatam. te livre lool la. Euh, livre production intellectuelle la man dama ko bëgg ci cadre ak leader. ngay réfléchir. di indi sa xalaat. ci li xew ci réew mi. ak réew mi fu mu jëm nga ñu joxe xalaat. te loolu dañuy rafetlu donc livre. mais malheureusement sénégalais yi du ñu lire. déjà ñu mën a yem yaa ngi dégg parce que gars yi sax ndax wutal xaalis léegi nag livre yooyu moo tax bariwuñu koy lire bu fekkee da nga wut support livre na am yeneen support même bu dee tama taafara sabar ak lëw rabbi nga dugal ko ci xam ne yow bu dee livre kese kese doo am impact population yi donc euh, support yi livre baax na réfléchir baax na production intellectuelle mais aussi da ngay am yeneen support de pour nga mën a nekk un leader bu populaire loolu mooy problème intellectuel yi d'ailleurs intellectuel yi souvent ay affiche ay tableau ay livre ay article ay débat intellectuel mais duñu duñu duñu am impact ci population yi te boobaa pour ñu nga faru du yomb il faut que intellectuels yi xam loolu nekk cadre bu baax nekk profil bu baax pour nekk président la ak mën a politique bokkul mën a aussi tekk tekkiwul nekk un bon président yooyu aussi dañ koy soit dañ koy duwaat la alors que bokkul d'accord ah ñu jeexalee ak li nga xam ni moo jëm ci guerru chiffres yi ci li jëm ci collecte parrainage bi ni mel euh, daane ko ci ëtt politique bi saa su ne nga dégg bi ci mujj bokk na ci euh, Benno Bokk Yaakaar bi annoncé nii am nañ lu ëpp ñetti million parrainage ci ki nga xam ni pour ama Amadou Ba mooy candidature euh, candidat bu Benno Bokk Yaakaar alors beneen bi bokk na ci objectif bi nga xam ne ex parti Pastef fixé nañ ko ñoom nee nañ bëgg nañ am ñetti ci ay millions alors daa mel ni mbiru chiffre daal lañ jël ci li ci wàllum parrainage bi alors stratégie la wala ab pexe li nga yi nga xam ni ñoo di woy politique yi moom la ñuy euh, teg. loolu loolu da ngay sa sax état major politique yi da leen di féliciter parce que loolu mooy seen droit def communication politique mu jàll dégg nga bu ko defee nga mën a am impact ci population yi influencé la journaliste yi ñoo nekkul seen droit ñu koy jàllale ñu mën ko jàllale bu nit ki fayee pour nga wax ne moom pare na euh, un milliard de personnes mais yow defal ni dañ maa fay def ci reportage nga xam ne lii espace la bu ñu jënd bu fekkee te nag da ngaa bëgg joxe information loolu du information c'est vrai que mën nga ko def entretien ni ni diw wax na temps mais nga dem jox parole aussi opposant yi ay opposant ay adversaire nga joxe jox parole euh, ay expert yooyu c'est en informatique expert en je sais pas bu ko defee nga def nga sa liggéey wala nga bàyyi fa waxi siisi parce que loolu du journalisme ñun ñëpp xam nañ loolu éthique déontologie loolu loolu daf ñu koy aay lu fi nga mënul yow kii def ay parrainage am du yàgg ba mu wan la fichier wala clé bi la parce que day bañ nga xam fan la yéen ñoo ko parrainé ak fan la fort ak fan la faible kon doo mun def benn fact checking ci loolu nga de mu lay ngay wax nga nga day ciblé di nga def à la journal dafa journalisme da def propagande te ñi koy def yëpp xam nañ loolu donc bu fekkente ne producteurs yi ñu seen mais boobaa journalistes yi nekk ñu seen rôle à partir de là journaliste correct li mu li mu wax dëgg la il faut que ñu xoolaat ñun suñu taxawaay par rapport ak ak situation yu mel noonu. Mhm. xam ni y a des règles dans ce métier règles yooyu ñu koy jéem a respecté. li mhm. boo ñu wut lu naxari ak candidat lu neex ak candidat wala lu naxari beneen candidat loolu aussi c'est important ci ci liggéeyu journalisme en effet impartialité euh, voilà. Assane Samb ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. di sant eh, bonne continuation. di fàttali ni yow taskatu xabaar nga itam da ngay xeltu ci wàllum politique.